xibaar yi yees ci mbiru ki nga xamante ne si nag moo di Dieyki Diop ginnaaw sax nag audition bu njëkk foofee nag ci division des investigations criminelles di dikk semaine passée moom Dieguy Diop nekk figure ci li nga xamante ne si nag moo di alliance pour la république di APR moom moomee nag war a daal di présenté waat devant le procureur nekk tey ci alxames bi fukki fan ci weeru octobre bile information sax nag moom moo ko daal di xamle ci émission ba nga xam ni daan na ko woon daal di sekk ak ki nga xamante ne si nag moo di même na ndox fay foofee nag ca 7 TV ñu daal di ko woon bàyyi mu ñibbi këram ginnaaw audition bu njëkk donc moom ex directrice générale euh, bu promotion de l' sociale et solidaire moom moomee sax nag ñu daal di ko waroon na convoqué waat niki rek ci lënd bi wante mu mel ni sax nag boobu les rendez-vous dañ ko daal di mujjee rek reporté bu sukkandikoo rek ci déclaration moom moomee nag di jekki Diop li nga xamante ne si nag moo waxal enquêteurs yi daal di koy convoqué bokk na ci rek ci lu jëm ci mbiru li nga xamante ne si nag moo di escroquerie sur des deniers publics sukkandikoo rek ci avis de recherche bi nga xamante ne si nag dikk daan na ko woon daal di euh, fësal ca loole sax nag tom ba nga xam ne daan nay daal di toll rek ci lu jege rek trente millions de francs CFA selon les informations relatées par la presse. ba tax euh, moom Dieyki Diop tey ji nag la war a daal dem wuy juwaat foofee nag ca division des investigations criminelles di DIC.